asalaamaaleykum chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dagalal ci Senego Kawtef euh, tey nag ma am mbégte dalal fii ki nga xam ne nag euh, kenn dootu ko naatable dëgg la nag gëj ngeen ko gis mais dafa ñëw def kam bagam ki ma dalal tey moom mooy Khady Ba nekkoon mannequin en même temps actrice def na tamit yeneen métier yu bëri balaa ñuy xuus dañ koy bàyyi déjà mu nuyoo ñu jublu ci waxtaan bi Khady Ba sama doom baay maa ngi lay nuyu. alors maa ngi lay fay Mina euh, di nuyu internet di ñuy seetaan vraiment euh, leen jaajëfal ci invitation bi. <laughs> déjà namoon nañ la gëj nañ la gis bu baax a baax mais balaa may commencer. Mm. dama bëgg xam déjà lan mooy sa secret. parce que dafa mel ni sénégalais gëj nañ la gis xanaa léegi mu léegi mu mot euh, plus de sept ans léegi. Mm. mais ba tey yaa ngi garde li nga xam ne ne moom mooy. xam nga rek nice <laughs> tegu ci temps bi wax ñu déjà sa secret. bah écoutez euh, Khadiba euh, benn jeune la jeune bu euh, voilà buy buy évoluer ci ci showbiz bi nekk nekk nekk nekkoon ci mannequin actrice voilà quoi ambitieuse quoi en gros <laughs> loolu laa mën a wax. donc est-ce que mën nga ñu wax ñan nga jot a fii nii ci ci réew mi. Alors, euh, pour ci réew mi euh, ba défilé naa fi euh, voilà les grands noms euh, ñoom Adama Paris nga xamante que mun leen génnee ci mode sénégalais parce que révolutionné nañ ko ñoom Oumou Sy Collé Sow Ardo et j'en passe j'en passe parce que voilà ñoom Mame Fagueye Ba koy soli de passage c'est moment bu baax voilà ñu gis ni bi ngay dugg ci mannequinat mhm. xale nga woon déjà te temps yooyu aussi du ku jóg rek dugg ci mannequinat donc yow nan nga def déjà ba percer parce que bu ñu xoolee sonoo rampe wa yenn rampe pour kii parce que dañuy jékki-jékki rek gis nga nga fël la donc mhm. lan moo nekkoon sa secret lan moo tax nga génn rek percer alors mën naa ni am na ci hmm. <laughs> mais persévérance aussi am na ci parce que voilà comme euh, du coup ba may doog a dugg ci mode bi euh, dama nekkoon ku timide timide timide timide déjà sama premier euh, secret mooy dama apprendre à accepter Euh, samay complexe maanaam li ma gënoon bañ ci man dama ko fexe jéem a xeex pour mën ko mettre en valeur déjà man naa ne loolu sama secret number one puisque je suis grand je fais 1m90 donc je me permettais de mettre des talons 15 centimètres pourquoi pas. moo nekkoon sa complexe. et eh sama taille je faisais 1m bon je fais 1m90 donc euh, euh, on croise pas des 1m90 dans la rue hein. <laughs> mais ñu bëri dañ la doon xaw a naan da parce que am na temps xam da nga xawoon tuuti. mais mhm. ñu bëri boo doon dem ci défilé yi sax dañuy wax ni yow. Mhm. ak sa taille déjà mhm. waroo défilé mais malgré ça gars yi dañ la doon jël ngay défilé ci podium yi. waaw parce que boo xoolee euh, comme défilé ku mel ni Adam Paris day soxla mannequin boo xamante ni day dugg ci 36 taille 36 taille 38 mais boo xoolee ay yenn défilé comme Mame Fagay Ba et Oumou Sy tout ñoom dañuy bëgg dugg ci 38 jëm voilà un peu plus voilà ñoom loolu ça les dérange pas donc dans un premier temps man ñooñu laa doon gën a défileel mais par la suite euh, voilà peut-être stress <laughs> de la vie parce que musuma def régime voilà ci la commence à commencer à perdre du poids et que ci la commence dugg dans ci 36 bi taille 36 donc loolu moo tax ma commencé défileel Adama Paris euh, ñu gis ni aussi nekkoon nga fi actrice. Mhm. ci ci bi bi ñuy wax ni euh, Pod et Marichou. ak Idole. donc lan moo tax gisatuñ la ci ci ci série yi léegi. alors euh, série yi mën naa ni ay contrat hybride la voilà donc euh, nekkul woon contrat boo xamante dañ ko signé en bon d'une forme donc c'était juste contrat yoo xamante ni. Euh, voilà c'était juste des contrat yoo xamante ni c'est bon c'était plutôt moral voilà da ngay tourner boo amee temps boo amul temps voilà donc man damay tourner parfois ma voyager mm. donc du ma mën a continuer mais leen yàqal dara du ma yàqal dara donc euh, moo tax voilà yàgguma ci en même temps moment boobu dama nekkoon euh, en plein carrière doon am ay contrat à l'étranger et que je voyageais beaucoup donc je ne pouvais pas me permettre de de rester ici et avoir des contrats à temps plein voilà. loolu tax mais gis nañu aussi ci milieu mannequinat bi nga nekkoon amoo ci woon xarit déjà dafa mel ni ay noon nga ci gënoon bëri lan moo taxoon lan moo taxoon gars yi jéppi la woon bëgguñu la woon gis lan moo nekkoon problème bi. solo da nga nekkoon daal maanaam tu étais tout le temps seule. alors man je suis de nature casanière déjà et que en fait euh, yàlla dogal na dama falewul daal koo xamante ni man en fait je gère pas les humeurs en fait c'est ça mon problème. Mhm. voilà man kuy mer <laughs> ça n'engage que toi man foo fekk maa ngi maa ngi sourire parce que pour moi je suis heureuse dans ma vie je vais pas dire que maa gën a ci àddina bi mais voilà gis ma lu war tax may mer mhm. donc man kuy mer man voilà dama lay tegee ne après je je fais ma life comme je le tout simplement. mais est ce que mës nga xeex ak benn mannequin <laughs> jot na parce que ci coulisses yi aussi lu nekk fay xew te man xam naa la doo bàyyi mu jàll wax ñu rek réellement wala mosu am. man kenn mosuma te xeex ba kaari kenn mosuma te xeex xeex. mais kenn mosu la poñe ci coulisses yi wala dara nga am foofu nit problème. wooy am na ñu ma bëggoon a poñe mais jotul am. jotul am mais jotuma cee daal man daal jotuma laaleeg benn man kenn. maanaam gars yi bëggoon nañ ñëw ci yow. di la kii mais yow yow comme ni nga ko waxee léegi que ni bëri woon naa ay noonu mais tamit noonu laa bëri woon ay soppe. Mm-hmm. donc peut-être bi attaque boobu bëggee am voilà j'avais des soppe yoo xamante ni euh, te nañ la personne à temps. et donc ma leen di remercier de passage du ma citer ay tur mais xam nañu xam naa. <laughs> Euh, xam nga milieu milieu mannequinat bi dafa dafa doy waar. Mhm. souvent dëgg la nag ci fépp la am foo dem rek am na ñu baax am na ñu bon. mais souvent ci milieu mannequinat bi lañ doon gën a joxoñ baaraam li nga xam ne moom mooy promotion canapé ndax dafa am ay jigéen ñoo xam ne ne wala sax ba ci góor ñi. dañuy bëgg tout le temps di fës wala di nekk ci podium yi. Mhm. yow est-ce mës nga dund li nga xam ne est-ce que ko pas dund mais est-ce que mës nañ ko proposer. oui promotion canapé mës nañ ma ko proposer mais dunduma ko nag très sincèrement. Hmm. voilà mais nag voilà ah, bon am na peut-être ñu koy proposer. voilà ñu koy dund mais aussi am na ñoo xamante ni ñoom ñooy proposer promotion canapé bi aussi. parce que voilà bëgg a siiw ñoom ñu ñëw proposer ko. voilà parce que boo gëmee sa bopp rek man pour man doo ci doo ci dugg. Hmm. parce que déjà bu ñu nee mannequin on a voilà da nga war a def. tel euh, 1m75 wala ñu tu dois faire 1m80 mm-hmm. donc si tu ne le fais pas bah va voir ailleurs quoi c'est plus simple mais boo bëggee force bëgg a et eh bah di nga dugg ci lu nekk donc man ñooñu laay wax que ni peut-être nañu dugg ci promotion canapé et que même bu ñu leen ko proposer ñoom ñooy dem proposer ko pour mën a nekk de de la mais en un moment donné di nga dem ci kanam di nga défiler mais est-ce que dina continuer mm-hmm. parce que ku la use pour nga défiler bah est-ce que à un moment donné du dem seeti keneen mais yow xamoon nga ci ay nit ñoo xam ne woon na la ñii dañuy jaar fii pour mën a <laughs> mën a tey ngay daje ñoom ci podium bi. amee ah, loolu jeex du jeex ñooñu canapé di woowee du jeex am na mais ah du ma tudd daal bàyyi bu sedd. léegi tey boo doxee xam nga li ñuy wax taari jigéen yaagul. Mhm, tey nga nekkoon ci ci milieu bi ñoom ñu nekk ci milieu bi. Mhm. mu leer na la dund nañ lii. Mhm. mais tey ngeen di dox di daje tey peut-être ku nekk am na jëkkër. am na doom wala sax génn ngeen ci milieu boobu noonu. Mm-hmm. tey boo dajee ñoom souvent la la lay def est-ce sa xel du dem ci loolu subitement. damay santaat yàlla rek su ma leen fois <laughs> cest damay naan tey ji lii da gisuma lu ko jar parce que man tey dugg naa ci millier bi te tey toog naa choisir dama ciy génn te dara ñaawul kon donc damay naan ñoom mënoon na bañ a ñaaw donc euh, xaw ma leen di wax quoi à xool leen rek mm-hmm. mais nit ñi tamit Sénégal xam nañ ne défilé moom da ko mhm. mënoon macha allah sa taille aussi mayoon na la ko mhm. euh, mais est-ce que mës nañ la aussi proposer défilé comme ay défilé nu wala slip ak soutien est-ce que jot nga ko défilé oui yàgg nañu ko proposer nag loolu moom euh, lu ñu ma ko proposer que ça soit ici que ça soit l'étranger du jeex mhm. mais dogalu yàlla dogalul ma accepter yooyu proposition défilé slip nu mosul nekk sama en tout cas mosuma ko xalaat def sama live en fait c' pas parce que bon <laughs> du ma ko répété dama koy répété waat. c' est pas mm-hmm. parce que jàppuma. Mm-hmm. mais c' est juste parce que du ma ko def tout simplement. Mm-hmm. par principe. et que je me le suis juré depuis le début sama carrière dafa am yoo xam ne dama ko waat ne lii duma ci dugg maanaam lii di tox lii di naan lii di sol slip daan damay défilé yii moom dama ne dama je me suis je me fait la promesse que duma ko def et que yàlla dimbal na dugg naa ci naa ba tey jii alhamdulilah génn naa ci hmm. kenn du ne mës naa romb xadi ba muy ndox di mberenge <laughs> mais est-ce que milieu bi nga nekkoon yaa ngi ci doon gis sa bopp est yaa ngi ci doon tedd comme liggéey nga ko defoon oui à l'époque mën naa ni je m'en sortais parce que loolu laa soxla woon hmm. mais aujourd'hui mënuma ni xaalisu naa mën naa ciy dund xam nga lépp loo gis temps la ak niveau voilà bi ma ciy duggu daan na ma ci génne mais aujourd'hui je ne pense pas que mën naa dundee travail ci mannequinat à temps plein peut-être mën naa ko def à gauche à droite mais ma am beneen liggéey à côté voilà mais euh, pas nekk def mannequinat mannequinat xar nag day weesu mboote nag. mais instant bi yaa ngi ci mannequinat bi ba arrêté. arrêté lan ngay def. ah bah écoutez <laughs> instant bi euh, maa ngi ci ay projet déjà euh, am na ñaari euh, maison de production yu ma woo du coup ñoo ngi ciy waxtaan et sinon maa ngi ci maa ngi investir ci immobilier bi voilà d'ailleurs moo tax ma ñibbisi dinañ ci ñëw déjà <laughs> ndax da góoru Sénégal yi ba pare ne fes daw ne yow daal doo doo doo sëy ak sénégalais parce que sénégalais xam nga daal xam nga sénégalais lan lañ la def mais nga ne fes daw dégg naa nga dem seex ak benn paa tubaab macha allah. seex seex seex paa bi nag di naan waaw kii bu bu bu demee rek ma jël alal bi yëpp fa tubaab bi tamit toog rek moom yàlla daj ko fi après nga toog ba sonn après dawaat ñibbisi noonu la demee wala kaa bi demee. ak maa yàqamti. kon man même pas may xaar mu dee man yàqanti naa de. <laughs> mais wax ñu réellement lan nga doon. ah non loolu moom moom. <laughs> lan nga doon parce que yàgg nga fa tamit. alors j'avais juste envie d'aller euh, xam nga euh, je me changer les idées parce que à un moment donné liggéey bi taroon na metti woon na maa ngi doon daw di dem di daw di ñëw et que à un moment donné xam nga ma amoon envie toog poser. voilà donc euh, pose jéem a apprendre autre chose. et voilà et donc du coup temps boobu ma toogoon foofu nag doon apprendre et que Covid bi nag ñëw changer un petit peu les choses donc mu gën ma confiner ma gën a toog foofu noon France. alors par la suite euh, ci la def euh, un peu de marketing affaire yooyu jàngale des trucs bon j'ai eu à travailler aussi là ba à gauche à droite comme képp ku dem <laughs> Europe voilà mm-hmm. et bah écoutez euh, j'ai décidé juste de revenir chez moi. mais dégg nañu aussi da fa doon sëy amoon nga jëkkër déjà jëkkëru tubaab yaa ngi fi woon di sëy est-ce yaa ngi toujours ci sëy bi wala da nga divorcé. non moi je suis célibataire. kon divorcé nga. mais marié wu ma <laughs> dañu la invité woon mariage yow. <laughs> non si quand même dañuy def suñuy investigation xam ne ni. amoon ah, nga amoon nga amoon nga jëkkër da donc mën nañ comprendre ni que Khady ba instant bi génn na ci sëy boobu tas na donc kuy fëgg ma nga ñëw. Ah, ah. ban sëy laa dugg <laughs> voilà Khady déggoon nañ fi ay temps aussi ngay fëgg bunt ki nga xam ne ne moom mooy Karim Wade ni ko Queen Biz defee woon rek est-ce que ba tey yaa ngi Karim mu ngi lay miirloo wala. non nabatuma Karim. nabatoo ko. ay ca léegi mën nañ xam comme célibataire nga. Mm-hmm. te mais instant bi nag Lions yi aussi dañoo xew xam nga ci Coupe d'Afrique la ñu génn. Mm-hmm. ñuy waaj a dem Coupe du Monde. Mm-hmm. dégg naa xale jigéen ñi duñu gis keneen ku dul. lion yi. Hmm. yow est-ce que am na koo teg sa bët déjà ci lion yi wala. non moo bëggee dégg-dëgg nag man bëgguma benn dragon très sincèrement. ah bon. Ah donc dañuy ñëwaat ci li nga xam ne ne fa la ñu commencé woon muy li nga xam ne moom mooy man mannequinat bi ak yooyu. Mm-hmm. tey gis nañu man mannequinat bi doxatul Sénégal comme nu mu doxee woon pour yow lan mooy blocage yi parce que doo jékki-jékki sax ba dégg défilé am na danga naan jékki-jékki. dégg ay école de formation mannequinat top modèle affaire yooyu mais doo si déggati dara ay événement défilé rien du tout. alors bon défilé dëgg la Sénégal c'est comme si que bon mën naa ni mannequinat sax presque mën nañu ne amatul parce que bëri na ay nag Sénégal mais défilé moo amatul. Mhm. et donc du coup euh, je ne sais pas su défilé amul ci dëkk mannequinat mënu fa am mais bon. mënu ma ci expliquer la même puisque man xaw naa génn ci milieu bi voilà. nan nga gisee Sénégal tamit léegi xale jigéen yi ku jóg bëgg nekk actrice ku jóg bëgg nekk actrice parce que dafa mel ni ñëpp seen bët foofu lañ ko teg. Ah. déjà yow nekk euh, joué nga ci quelques séries. Mhm. ci mel ni ay Pod et Marichou ak. Mhm. Euh, déjà casting bi nan la demee woon dañ la woo wala yow yaa dem defi casting. alors. Potier Marichou euh, dañ ma woo defuma casting dañ ma woo et que ils m'ont proposé le film e que ma xool ko mu doon série boo xamante ni euh, trouvé woon naa ko intéressante donc du coup euh, ma leen ok anyway on a joué mais def ma woon casting. Mm. léegi lan ngay waxale jigéen yi nga xam ne gisuñu leneen lu dul dem nekk actrice. ah ñu foncé lan nga leen di conseillé. <laughs> parce que déjà comme yow tel joué nga quelques séries déjà lan parce que ñëpp koo laaj da da même bu casting amee da ngay xool rang bi dangay xool ñi nga xam ne ne c'est comme si métier boobu rek instant bi moom moo fi am. ah mais moo fi am pour ñi nga xamante ni ci audiovisuel la ñu bëgg a liggéey par exemple wala ci euh, showbiz la ñu bëgg a dem aujourd'hui euh, lan moo fi am Sénégal amul grand chose bu nit ñi mën a def puisque défilé doo ko dégg amatul donc euh, ñi ñi ñi nga xamante ni loolu da leen a intéressé. dañuy soit dañuy virer ci TikTok bi wala ñu dem jouer ji film lii de moo fi am amul leneen te tamit il faut ñu liggéey. <laughs> maa jommi sax man. dafa mel ni aussi dañuy ñëwaat tuuti rek ci sa passé. Mhm. boo gisee bëgguma fa woon commencer c'était juste pour ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy sa carrière ñëw ci li nga xam ne moom mooy actualité euh, ma bëggoon ñëwaat tuuti un peu ci sa ci sa passé nga defoon benn interview di ñu wax ni que jot nga sëy. may nañ la bi ngay am 16 ans nga sëy mais à chaque fois booy ñëwaat ci sëy boobu tout le temps da ngay tuur li nga xam ne moom mooy rongañ mariage boobu dañ la ci forcé woon wala mariage boobu dangay gisante nit ki bëgg ko nan la demee woon. aw ma wax ci. lu tax bëggoo ci wax. parce que awma envie wax ci tout simplement. Oh. ana doom bi nga amoon ci sëy boobu léegi j'espère que màgg na. oui oui il est ñoo nekkoon rek sànq si. boo ko gisee la tout le temps boo koy gis. bah c'est mon fils unique je l'aime bien. <laughs> mais lan moo taxoon nga génn ci sëy boobu dañ la doon dóor dañ la doon toroxal walla yàlla moo tuddoon ni rek sëy bi day tas. bëgguma ci wax bëgguma ci wax. mais sa passé la te te passé dafa bokk dafa bokk ci nit aussi. oui mais bëgguma ci wax très sincèrement je avancer voilà xool sama kanam ay xool ginnaaw moom. mais lu tax à chaque fois buñ la posé question ci sëy boobu rek ngay tuur rongoñ parce que dafa am <laughs> tamit bi dafa am ñoo <laughs> xam ne ne ay jigéen lañ hmm? ñu nekk ay ndaw ñu mhm. aussi tey am nañ peut age bi nga amoon ñu am tey 16 ans peut-être seen yaay bëgg leen maye wala dara boo gisee ñuy revenir foofu parce que tey yaa des mariages forcés am na ay yeneen ak yeneen donc tey yow yaa fi nekk pour xeexal ñooñu wala wax leen ndax ku ci mel nii am na tey ñeneen ñoo xam ne ne dund nañ li nga xam ne moom mooy excision dañuy toog ci tele te peut loolu moo gën a metti mhm. di ko xeex parce que dañ ci jaar mhm. yow nga jaar ci benn mariage bu metti peut dañ la xeeboon ak yooyu ñëwaatal juste loolu ba pare nga conseiller xale yu jigéen ñi nga xam ne tey peut-être amoon nañ âge boobu lan moo tax nga génn ci sëy boobu. non du ma développé nag ci euh, loolu comme li ma la wax tout à l'heure su fekkee dama conseil may jox les jeunes et que voilà mooy euh, lu ma leen mën a conseil mooy d'accord ma ci le fait que ñu ne la. Euh, sëy li ci kaw lem la lu ci suuf kaani la ñu koy accepter loolu ça n'existe qu'au Sénégal quoi mm-hmm. voilà donc muy xale di mag képp ku nekk ci sëy daal xam gisoo loo xam jëlal say ñett wuti leneen si aussi simple parce que kenn accepté ñu lay guddeel bu kenn accepté ñu lay wax sa conduite fi nga war a dem ak li nga war a def parce que da lay sa temps hmm. man daal loolu laa gis néew ma nag bul muñ mais muñ dafa am limite hmm. waaw foofu daal nga mën a nga mën a yem du ma ci dugg <laughs> mina dama duggal ci lu ma mais dégg naa aussi ci ci sëy boobu noonu ñoom dañu bokkoon ci yax bu rëy comme niñ koy waxee o Sénégal dëgg la mm-hmm. ñëpp ñëpp ñii ay jullit lañ ñii ay catholique lañ mais ñun ñëpp ci yoneen ci aadama ak awa lañ jógee donc tey dañu gis ay sëy yoo xam ne ne day am ci famille yoo xam ne ne dañu naan kii ñun ci yax bu rëy lañ bokk mais ki ñu indil bokkul ci yax bu rëy mën nga bokk ci famille bu baax mais boo ko ci yax bu rëy amoo peut-être ah, wala loo xam ne ne tey mm-hmm. boo sëy see nga ñëw yebbiwoo wala indiwoo ay teraanga indiwoo bool indiwoo teral say goro teral say njëkk sa wujju peccoor nga ñëw def loolu mm-hmm. tey day mel ni ki nga xam ne ne moom mooy sa wujju peccoor ba moom la ñuy gën a téye moom la a fonk pas na leen alors que yow mi nga xam ne teral teraloo leen parce ko donc yow yaay ki nga xam ne moom mooy ko bon ki est mën nga ñu ñëwal ci loolu parce que loolu dund nga ko fi nga xam ne aussi fa nga nekkoon. <laughs> Mina Mina du ma ci wax. <laughs> du ma ci wax bu yàq émission bi. kon léegi nanguwoo ci wax dinañ la ko nangul parce que xam naa dafa metti donc am na yoo xam ne dañoo si bëgg a jaar mais est mën nga ñu wax tuuti ci sa doom wax ñu tuuti li nga xam ne moom ngeen dund seen complicité soo ko gisee loolu yëpp nga wax ñu si. ba awma ci ñaar awma ci ñett sama sama raison de vie quoi en quelque sorte nanga bëgg a wax la voilà mën naa ni euh, trophée la. voilà bu ma géeyee ci mariage laa mën a wax. ban waaw sama xarit la nag <laughs> sama xarit la ndaxte fii laa ñëw <laughs> def sama greffage bi mu rafet. Mhm. mu ne ma yaay sa greffage bi nga war a dindi. <laughs> waaw nga sa bopp bi boo jàpp sa bopp day gaa watooy mhm. lii daal la ma wax voilà ma commencé waat. donc tey moom bu demoon ba màgg ku mu gis bëgg ko mu bokk ci yax bu rëy ak bu da nga koy accepter. est-ce que bëgg bëgg nga bëgg ko dundaloo yow li nga xam ne moom nga dund. nan nga nar a comporté wee ak ki nga xam ne moom mooy sa doom bu góor nga xam ne ëllëg war na takk jabar. Mm-hmm. nan yan conseil des fois nga koy jox wala lan ngay xalaat yi bés bu fa tolloo noonu ngay doxalee ak moom. man moom sama doom moom lu ma koy conseillé mooy na takk mu bëgg même bu dee koy taxawaalu ci mbedd bi. Mm. na ko bëgg mat ko seytaane ñu dund dans le voilà kii en fait du man may choisir ku baax ci moom moom moo xam ku baax ci moom en fait. parce que néegu xam nga loolu mbëggeel dafa xat quoi ko bëggul xaju ci c'est aussi simple que sax te nit ki il est nit ki capable na changer pour bëgg euh, ak euh, ni ñu koy mbëggeel mën nag changer nit. Hmm. donc munoo toog di def ay jugement de valeur ci nit voilà quoi tout simplement. donc euh, xam naa fii la ñuy jeexalee ITV bi. Mhm. donc di la laaj aussi lan mooy say projet déjà. alors projet yi ngi ñëw rek voilà comme ni nga ko waxee ci émission bi voilà mooy euh, maa ngi ci immobilier bi investir naa ci di def voilà rachat e vente et à part euh, maa ngi ci euh, wax maa ngi waxtaan ak ñaar maison de production voilà pour des films séries un comme ça voilà donc d'ailleurs loolu tax ma revenir ok donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax donc mën nañu sénégalais yaa ngi fi pour l'instant oui maa ngi fi pour l'instant di la remercier Mina ci invitation bi dalal bi merci beaucoup merci beaucoup Khady